udwun min al baatha al misriya fii ci al azhar markaz Cheikh Mamadou al Bachir bi nekk Thiès mu ñëw fii di fi jàngale moom nag ñi war a seq ak moom waxtaan wi ci mbir yoo xamante ni yu itteel jullit bi ci diggante jàppoo ak booloo ak sukkandiku ci eh, wax yàlla sunu borom kon dañ leen di bàyyi ak moom mu daal di sóob ak ñun ci waxtaan wi aouzu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad xaatim al anbiya wal mursalin bismillahi arrahman arrahim mathalu kalimatin tayiba ka shajaratin tayiba asluha thabitun wa furuuha fi sama تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله العظيم نشكر لموقع الأزهر طوبى على بعثه ونشره للثقافة الإسلامية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء حديثنا اليوم يتكون على روابط الأمة الإسلامية ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين bi muy tàmbalee dafay ñaanal site bi nga xamante ni mooy al azhar point com waaye itam xamle tomb bi mu bëgg a waxtaan ak ñun muy euh, lépp luy boole jullit ñi ne ak di leen lëkkale ci ni ko alxuraan digle ak sunna yaqulu allahu tabaraka wa fi kitaabihi alkarim واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى الدستور السماوي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده في الأرض كي يحتكموا إليه وكي يعملوا به ويلتزموا بما قاله الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم foofu dafay wax ni yàlla kat bu ñu demee ci alxuraan dafa digal xeet wi ni leen na ngeen booloo jàppaloo ci sama buum gu dëgër gi te bañ a teqalikoo te mooy lislaam te neena alxuraan mooy constitution bu jullit yi nga xamante ni yàlla def ko wàcc ci ñoon ngir ñu jëfee ko ca na ko waxe waaye nee na itam bu ñu demee ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi feddali loole di melal jullit ñi ci seenug booloo ak seenug jàppaloo ak seenug bennoo ni ki nga xamante ni yaramu doomu aadama ni mu booloo ni mu jàppaloo ak ni mu bennoo ci benn cër bu yëggu mettit rek da ngay gis yeneen cër yëpp dootuñu mën dara nee na mbirum jullit ñi noonu la demee fa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi haaza al-hadiis al-shariif yu'akkidu ala wahdati al-umma al-islaamiyya وعلى تماسكها وترابطها واعتصامها بحبل الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ويقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح من هنا كان المنطلق لترابط وتماسك الأمة الإسلامية كما يقول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وفي آية أخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة فالله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تماسك وترابط الأمة الإسلامية في كل زمان وفي كل مكان waaw foofu itam mi ngi leeral ni ay yooyu mu njëkk a jàng ci yàlla ni mu ñu digloo ñu booloo ñun jullit ñi eh, day xamle ni kon jullit ñi dañoo war a bennoo saa yu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam xamle ni jullit ñi dañoo war a ràbbaloo dañoo war a jàppoo mooy ànd rek booloo ci lépp euh, ndax kat lenn luy war a wuutale jullit ñi dañ ko gisut nee na ndax aaya bi ñuy yàlla di wax ci alxuraan daf lay xamel ni moom sunu borom day àddu ni yéen day maa leen bind yéen nit ñi def leen ay xeet yu wuute ak ay giir yu wuute ngir ngeen xamante waaye nag ki gën a tedd ci yéen mooy ki ëpp ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam am ci benn xadis bu muy wax ni yéen ñëpp yéen a bokk jugeendoo ci aadama bokk yemoo daraja te aadama ci ban rek lañ ko bindee kon loolu lépp day tegtale ni nit ki moom ngëneel wartu am gu koy wutalee keneen ba koy xaajaleeg moom dañoo war a jàpp nit ñëpp ñoo benn lañ ñaandi ci lépp kon nee na aaya yooyu daal mooy feddali nii yonente bi li mu ñu jàngal ci booloo ak bennoo lu munta ñàkk la ci diggante jullit ñi wallahu taala yuxaatibu rasulahu alkarim sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nazira walakina aksara annaasi la yaalamuun ولذلك نرى عبادات الإسلام مثل الصلاة مثلا هناك صلاة الجماعة صلاة الجماعة الغرض منها اجتماع الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله عز وجل وعلى ذكر الله تبارك وتعالى كذلك الحج الله سبحانه وتعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم هذه المنافع دينية ودنيوية من المنافع الدينية أيضا اجتماع الناس وتعارفهم وتماسكهم وترابطهم ومناقشاتهم لأمورهم ومشكلاتهم التي تعنوا لهم في هذه الحياة فالإسلام دين يجمع دين يدعو إلى التماسك دين يدعو إلى الترابط ولذلك نرى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه صلى الله عليه وسلم الناس من شتى مختلف أقطار وبلدان العالم في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان وفي جميع الأماكن كان صلى الله عليه وسلم يجمع وكان يدعو إلى التماسك ويدعو إلى الترابط وهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم كما كان العلماء يصفونه بذلك كان قرآنا يمشي على الأرض يعني كان يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يدعو يدعو إلى التماسك ويدعو إلى الترابط ويدعو إلى الاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وينهانا عن التفرق وعن التشرزم فيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذه دعوة القرآن وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم waaw foofu itam muy feddali rek li mu doon wax ni alxuraanul karim sunu borom daf cay wax ak yonente bi ni ko dama lay yónni yow nga doon Euh, yërmande ci mboolem mbindeef yi mu ni loolu lañ cay déggee nee na mooy kon yërmande lislaam ci dajale nit ñi boole leen buñ ko toppee nee na ponk lislaam yi day firnde loolee nee na julli moo ci jiitu mbooloo gi ñuy daje ñun ñëpp di ko defandoo sàkk benn imam muy wax ci kàddu ñëpp nee na loolee euh, day day day tegtale ni jullit ñi booloo nañu ci seen lépp jàppaloo nañu nee na itam xaj màkka yàlla sunu borom ba mu koy digle aaya ba mu wax dana yow yonente bi nanga nga digal nit ñépp ñi aj dikk ci anam yu wuute moo xam dañuy war wala dañuy dox ak euh, seen tànk jóge ci barab yu ne bu ko defee ngeen màng fa ay njariñ mu ne njariñ yooyu ca yàlla digle ca aj buñ ko seetee nag am na ay njariñi àdduna am na ay njariñi àllaaxira maanaam njariñ yoo xamante ni luy gën a boole jullit ñi ci wàllu àdduna ndax dañuy daje di xamante di daje di gëstonte seen i mbir di ko waxtaane ku ci nekk di xam sa mbiri moroom man leen dimbali nee na kat loolu ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën a jàppandalee boole nit ñi li ñuy wuute wuute ci ay xeet li ñuy wuute wuute ci ay ngiir loolu nag nee du gan ndax yonente bi moom daa doon alxuraan di dox ndax alxuraan moom moo digle loolu lépp digle na booloo digle na jàppante waaye noonu la tere itam teqalikoo ndax nee na woon bu leen teqaloo euh, mukk ba seen kattan di jeex wala seen ngeen di néew doole wa yaqulu llahu ya ayuha allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الحياة الكريمة إلى الحياة الهانئة الحياة الطيبة الحياة التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذه الحياة الطيبة تكون في رحاب الإسلام تكون في ظل الإسلام تكون في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويقول سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باق فينا وهو موجود فينا بهديه الكريم وبسنته الشريفة العطرة التي تدعو إلى المحبة وتدعو إلى الوداد وتدعو إلى الوئام وتدعو إلى السلام وتدعو إلى الصفاء وتدعو إلى المحبة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة ويقول المؤمن ألف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف هكذا هو الدين الإسلامي الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين mu dikkaat rek ci ay aaya ay ay aaya alxuraan yu bari bu ca njëkk mooy yàlla dafa wax nee na yonente bi sallallahu alayhi wa ni ko wowal jullit ñëpp ñi bennoo ci loo xamante ni da leen di dundal mu ni woote boobu nga xamante ni moom la yàlla digal yonente bi sallallahu alayhi nag mooy woote bi tax doomu aadama ak dundam am réussir am li ñu wax ak texe ba euh, doomu aadama mucc ci xeeti ndax naxi jamono ak xeeti jafe-jafe yi àdduna Euh, nee na ko itam képp koo xamante ni jëf na jëf ju baax sunu borom nee na man maa la warlul ak dund gu teey euh, goo xamante ni fii ci àdduna lay njëkke waaye goog àllaaxira ga gën koo teey di ko xaar mu ni nag dund yu teey yooyu ak nekkin wu rafet woowu ca euh, ni mu gën a neexee ci bakkan duñu ko fekk mukk lu dul ci ron lislaam gi nga xamante ni moom mooy waxi yàlla sunu borom waaye tënkuwul ci xalaat nit euh, mu ne nag ñun jullit ñi li ñu war mooy jëfandikoo arxaan bu baax a baax ndax kat nee na nee nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama ko def ci seen biir ngeen war ko jàppe royiteef dee leen ko roy am faneen mu ni na ngeen xam ni yonente bi mi ngi ci seen biir moom nag bu leen bàyyi woon ci seen sogo di leen topp kon mbir mi du sob du sotti waaye nag e, sunu boroom moo ko def muy royteef ci ñun daal di ñuy soppaloo ak ngëm ba ñu gëm ko nee na ñooñu ñooñu texe dëgg-dëgg kon yonent bi bu fi jógee ci saayir itam gis ñu jëmmam nee na ba léegi ab liggéeyam mi ngi fi walla yonente bi daal jugu fi la wax ndax nee na sunaam si mu fi bàyyi li ñi ngi ciy teg sunu tànk dafay mel ni mu ngi ci sunu biir dafay mel ni mu ngi ñuy guidé nam ñu doon giide ci jamono yi mu yoree yaram ak ñun mu ni nag diine lépp e, muy sunna soos mu wax jëflante bu rafet la ak yiw ak teraanga séqante jàmm nee na nag lislaam dafa mat sëkk moo tax yàlla sunu borom ni woon yow yoonante bi day matal naa la sa diine ji te itam nangu naa ni lislaam mooy diine kon nag sant leen yàlla ci loolu bu baax ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو المثل الأعلى لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبحبه صلى الله عليه وسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه واتباعنا له صلى الله عليه وسلم يكون بالتمسك به والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم تدعو إلى التماسك وتدعو إلى التحاب وتدعو إلى الترابط وتدعو إلى التعاضد وإلى التكاتف حتى يكون المسلمون جميعا على قلب رجل واحد لماذا؟ لأننا نعبد ربا واحدا وندين بدين واحد ولنا نبي واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم فعلينا جميعا أن أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا جميعا أن نترابط وأن نتماسك وأن نتراحم فيما بيننا ويكون قدوتنا في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع ولم يفرق والذي كان بخلقه وأخلاقه الكريمة مثلا أعلى وإماما للناس جميعا التف حوله الناس من مشارق الأرض ومغاربها والكل آمن به والكل اهتدى إليه وكان يلقبه بالصادق al muy xam le ni ñun li ñu war ñun jullit ñi mooy jàpp bu baax a baax li ñuy yonent bi sallallahu alayhi bàyyil te topp ko bu baax a baax nit ñi ko alxuraan di diglee ci ay yu wuute yu bokkut waaye itam war nañoo sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cofeel gu dëggu ndax nee na yonent bi kat waxoon na ci xadis ni amul kenn ci yéen koo xamante ni ak ngëmam dana dëggu lu dul ni dama ko gënal ay ñaari waajuram kon nag loolu moo war jullit ñi muy na nag jullit ñi gis ñu lenn lu leen war a mën a teqale ndax bu fekkee seenub yonente day benn muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam téere bi ñu yor itam di benn muy alquranul karim kon nee na war nañoo mën a rabaloo booloo te nag yonente bi nee na exemple bi gën a kawe moom la doon ndax nee na jullit ñi bi mu fi nekk àggale woon na lislaam ci gox yëpp te ñëpp defoon na leen benn kon loolu nag war nañ cee roy bu a baax وفي نهاية الحديث نشكر لموقع الأزهر طوبة دوت كوم على هذا الحديث ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muy tàggatoo ak yéen mbokk yi di rafetlu liggéey mawqin bi site bi nga xam ni mooy al azhar touba point com di leen dokkeel di leen ñaanal jàmm euh, kon loolu mooy waxtaan wi ñu àndoon ak yéen ci Cheikh Mouhamad Lutfi Euh, ñu ngi koy sant bu baax nag moom ndax euh, itte jum jox diine ak lislaam euh, ba tax mu dagg iteem yëpp ñëw ànd ak ñun te itam lii ak laabiré la sayid naskuruk lil gaaye wa nafraxu jiddan bi hadihi al muxaadara allati alqaytaha maana barakallahu fiik jazakallahu an il wa an il umma kon mbokk yi loolu la woon ñu leen di sant di leen gërëm ba beneen